laqin lisaani waxlulan minhu lonqat wajaalhu zakiran wa shakiran abad wajaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu tedd boobu te di leen ziyaara di ñëwaat ak yeen rek Euh, bëgg ànd ak yéen comme ni ñu ko baaxoo defee ci ay bis bu nekk di ànd ak yéen ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne ci lay jàngale ay teggiin waaye ci lay jàngale doxiin wu rafet woo xam ne euh, jullit bu ne war na koo bàyyi xel te di ko doxe waaye doxiin wu Euh, worma wu ànd ak worma ànd ay teggiin woo xam ne ku ne war na ko bàyyi xel te di ko doxe ñu ci doon àndak ak yeen ci ay bind yu bare bari ba ci suñu bind bu mujj ñu taxawoon fi nga xam ne fila sëriñ bi radiyallahu anhu di ñaaxe taalube bi nga xam ne moo bëgg sàkku xam-xam ci ni nga xam ne noonu la war a melowoo ci kanam ab sëriñam waaye jikko yi nga xam ne moom la war a jikko woo ngir bu sàkkoo xam-xam ba pare loolee man koo jariñ euh, bi ñuy taxaw ci foofu sëriñ bi mi ngi muslu ci bépp xam-xam boo xam ne nit ki daf koy sàkku ba pare te daf ko du ko amal njariñ xam-xam nag mbokk yi xam-xam ci jëmmi boppam day am njariñ waaye ni ko nit ki di sàkkoo mën naa tax moom mi ko sàkku xam-xam boobee du ko amal njariñ ndax ba mu koy sàkku teggin yam ca war a sàmmonte moom la ca sàmmonte wut ci bayit boobu la ñu taxawoon ci sëriñ bi di wax naan aazana allahu wa iyaakum maan min kulli ilmin aaliman lam yanfaa ci bayit boobu lañu ñu taxawoon ñu bëgg a ñëw rek continuer ak yen sara bi nga xam ne moom mooy sara bayit yooyu mu ne yaani li jublu ci loolu mu la doon wax annahu naka moom ya'muruka dana la digal bi an tuhdiya ci ngay addiyaal ila cheikhika jëm ci sa sab sëriñ bi mastatanta ci lépp loo xam ne man nga ko sëriñ bi nee na mi ngi lay digal ngay addiyaal euh, sab sëriñ ci lépp loo xam ne man nga ko moo xam sëriñ bi nga xam ne moo lay jàngal la moo xam sëriñ bi nga xam ne moo lay yar la waaye it moo xam sëriñ bi nga xam ne moom moo lay yéege jëmale ci suñ borom ndax euh, ab sëriñ moom euh, faw mu bokk ci ñetti ñooñu imma mu doon sëriñ bu lay jàngal wa imma mu doon sëriñ boo xam ne dalay yar euh, di la xamal ni nga xam ne noon nga war a jikkowoo waaye xamal la sa boroom ak sëriñ bi nga xam ne dalay yéege di la jaarale ci yoon yi nga xam ne ci ngay mën a eggee sa boroom ci ngay mën a eggee ci sa borom kon ne na na ngay addiyal sa sëriñ bi nga xam ne moo lay jàngal wala sëriñ bi nga xam ne moo lay e, tarbiya na nga fexey ba e, di ko addiyal ci lépp loo man wa in xalla doonte ne niiw na doonte ne li nga koy addiyal niiw na sax waaye bul ko xeeb na nga ko koy addiyal wa an tataxarra ak ci ngay nattale ngay tollale di gëstu maa lépp la nga xam ne raaytuhu gis nga ko moom sëriñ ba yamilu muy jeng ilayhi di jëm ca loole fii kulli amrin ci mbépp mbir mu man di doon euh, wa an tajtahida ak ci ngay euh, góorgóorlu di farlu fi isaalihi ca matalam nga nee na it mi ngi lay dénk euh, addiya jooju nga xam ne moom ngay addiyal sab sëriñ nee na bul ci xeeb dara dara lu mu mandi di toll bul ko xeeb ndax yéene ja rek moo ci am solo kon boo koy jox addiya nañ nga ca yéene jëmm yàlla rek tax waaye nañ nga ca yéene la nga xam ne moom la lay xamal waaye ngay gëstu li nga xam ne moom la sab sëriñ bëgg ngay dox di jëm ca loola waaye lépp loo xam ne gis nga ne lii sab sëriñ daf koo yittewoo te nga man ko caa jàppale nga fexe ba jàppale ko ca tey farlu bu baax ci lépp loo xam ne moom nga ko tàmbalil nga jiim ko ko eggaleel waaye it ngay bàyyi xel ci moom bu baax a baax a baax a baax wa an taxtarima ak ki ngay wormaal jamia mutaallaqaatihi ak ñépp ñi nga xam ne ñoo aju ci moom min ahlin moo xam ci waa kër la wa abidin wala euh, ay jaam wa gayrihim wala ñeneen ñu dut ñoom dana it mi ngi lay dénk ngay wormo ngay séddu wormo bu baax a baax képp koo xam ne xam nga ne kii ci sab sëriñ la aju moo xam ak njabootam la moo xam ay jaamam la ci jamono ja nga xam ne jaam daana am waaye lépp loo xam ne gis nga ne lii sab sëriñ moo ko moom nang ko ko fonkal bu baax a baax dàll wi nga xam ne moom la sab sëriñ di sol sax nanga ko ko fonkal bu baax a baax di ko fonk di ko ca euh, sàkku ngërëmam ndax mën naa am jëf ko jëfal rek mu xool la ca ca jëf jooja nga am ca fajug kon bul xeet dara lépp loo xam ne euh, moom nga gis sab sëriñ yittewoo ko wala lépp loo xam ne gis nga ne lii mbirum sab sëriñ moo ko moom te nga mën ko caa defal dimbali ko ca defal ko ca lu baax loole lépp bul ko ca xeeb ndax man na laa euh, fajal say aajo moo tax mu ne euh, kon képp koo xam ne dafa aju ci moom wala képp koo lépp loo xam ne dafa laal ci sab sëriñ ne na nanga ko warmaal waaye nang ko bàyyi xel bu baax a baax seddu ko ay teggin seddu ko warma te jëmmi yàlla rek tax waaye jëmmi sab sëriñ mi nga xam ne moom mooy def ci yow xam-xam tax moo tax mu ne laallahu amaana loolee nga xam ne moom ngay def muy wormaal ñi nga xam ne ñoo aji ci moom an tansura mu xool la mu xool ilayka jëm ci yow nazratan ab xool nazrata mahabbatin xoolub cofeel boo xam ne yuux nii dana la doyloo bihaa ca moom mawlaaka sa boroom nee na euh, xool bi la sa sëriñ di xool day nee na loolu rek mën nga cee am euh, euh, man nga cee doyloo lépp wólif sa borom maanaam suñ borom mën na la cee fajal say aajo ba lépp loo xam ne mooy sa soxla suñ borom faj ko ci xool bu la sa sëriñ xool rek ab xolam sedd ci yow nga jëfal ko lu xolam sedd ci yow ba mu gërëm la ci xool la xool boo xam ne xoolub cofeel la waaye xoolub mbëggeel la xool boobu rek suñ borom mën na cee faj say bu baax a baax a baax kon saa boo demee ci kanam ab sëriñ di sàkku xam bul yem ca sàkku xam-xam xam-xam nga waaye na nga fexee sàkkuwaale ngërëmam sàkkuwaale ak ak ak cofeelam ndax yooyu yëpp boo ko amee mooy li nga xam ne moo lay dimbali ba Euh, lépp loo xam ne moom ngay euh, mébét di ko bëgg ca jataayam boobee man suñ borom mën na la koo defal te loolu lépp ci ngërëmul sëriñ bi rek nga ko mën a amee moo tax mu ne fa inna bi xadri ijlalika naka ci kem sak màggal alaalimi aji xam yakunu ngay nekk intifaau euh, yakunu lay nekke intifaaul mutaallimi jariñuk aji xam lu waxat xiila wax na nee na dëgg-dëggi jariñu day ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam su fekkee ne bëgg naa jariñu dëgg dëgg jariñoom day ci lenn rek la ko mën a amee mooy ci màggal gi nga xam ne moom lay màggal borom xam-xam bi nga xam ne mooy def ci moom xam kon ki nga xam ne mooy def ci yow xam-xam boo bëggee jariñu ca xam-xam ba muy def ci yow nee na bul ko xeeb mukk waaye na nga koy màggal te na nga ko maal bu baax a baax a baax na nga ko teg ci euh, place boo xam ne fala ko suñu borom subhanahu wa taala teg waaye na nga di sàkku ngërëmam di uh, uh, di xeeñtu li nga xam ne mooy am njàngaleem bu baax a baax ngir uh, di ko defal lépp loo xam ne moo moo moo yell ci moom ngir loole mën na la ci gërëm te bu la ci gërëmee sa lépp baax moo tax mu ne wax na am na ko waxoon ne ara gis na xaqal muallimi aqi aji jàngale aw jabal asiyaa yi mu gën gaa yelli mbir mu gën gaa yelli mbir wa aakadahu feddleef na ko xaqan ci àq ala kulli muslimin ci bépp jullit fa xadd xaqa yay na an yuhda ba dee fi addiyal ilayhi jëm ca jàngalekat ba karamatan ngir teral euh, bi taalimi alfi ci addiyal junni dërëm xarfin waaxidin ci wenn araf nee gis na ne day euh, li yell ci mbir yi de mooy jox ab jàngale jàngalekat ak xam maanaam ki nga xam ne mooy jël xam-xam di ko def ci yow de nee na gis na ne kooku moo gën a yell ci lépp lu ñuy yittewoo wala ñu koy bàyyi xel rek kooku moo ci gën a yell koo kooku moom lañ ci gën a jox moom lañ ca war a gën a jox yitte waaye kooku moo ci ëppale àq nee na loolu moo tax mu gis ne euh, yelloon na képp koo xam ne jàngal na la ba def ci yow benn araf rek. nee benn araf bum la jàngal rek waroon nañ ko caa mën a euh, addi yàllu mat junni dërëm kon loolu euh, day wone ne ki nga xam ne mooy def ci yow xam-xam xam-xam ba euh, la muy def ci yow mënoo koo fay waaye da nga koy addi rek kon da koy addi ndax bu fekkoon ne benn araf bu ne da nga ko cay fay junni sax mënoo koo fay ndax loola addiya la ko tuddee kon waxuma laa nag ba nga xamee ne par weer la lay fayeku wala parum at wala yu demee noonu kon loolu li muy tegtale mooy àq jun war a jox ab jàngalekat muy kuy jàngale euh, jàngal nit ñi di leen xamal li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala santaane waaye it di leen euh, def ci ñoom ay teggin def ci ñoom ab yar kon loolu lépp dafa doon lu am solo loo xam ne kenn waru koo ginnaawal kon looloo tax mu ne moom de gis na ne li gën a yell ci mbir yi de mooy ñu jox ab jàngalekat àqam te àq jàngalekat nee na moom boo ko doon. xayma danaan euh, pour ñu wormaal ko rek mën nañ ko fayee benn araf bu la jàngal ñu fay ko ci junniy dërëm wala benn araf bum la jàngal ñu àddiyaal ko ci junniy dërëm euh, kon loolu day tegtale am solo goo xam ne am na ko solo moo tax mu ne xattaa laxad xiila ba topp waxeef na innahu naka moom ab jàngalekat muqaddamun ku ñu jiital la ala xaqil walidi ci aqi euh, wayjur kama xaala comme ni ko mu ko waxee baaduhum ñenn ci ñoom nee na gis na ne ab jàngalekat tamit moom lañ ci àqam moom lañ war a jiital ci àqi waajur moom lañ war a jiital ci àqi waajur euh, comme ni nga xam ne ñenn ci borom xam-xam yi wala ñenn ci waykat yi wax nañ ko mu ne uqaddimu dinaa jiital ustaaz yi sama ustaaz muy sama jàngalekat ala xaqi waalid yi ci àqi sama waajur wa inkaane ak doonte ne nekk na lii di ma ñeel fil waalidi ci euh, sama waajur albirru ak mbaax wal lutfu ak ak ñeewante ne man de gis naa ye jiital sama àqi ustaaz moo gën a yell fuuf ci man ci jiital sama àqi waajur doonte ne waajur mooy ki nga xam ne ma damaa war a baax jëmale ci moom damaa wara a ñeewante jëmale ci moom te it moom mooy ki nga xam ne moo ma gën a ñeewante euh, gën maa gën a mën a defar sama mbir ci euh, zahir waaye it loolu warta tax ma jiital àqam ci àqi sama jàngalekat nee na sama jàngalekat laa war a gën a mën a bàyyi xel ndax moom mi nga xam ne mooy sama jàngalekat li mu ma mën a defaral sama waajur mënu mu ko defaral te boobaa bayit bee di ñëw ca kanam dina ko leeral moo tax mu ne fa haza lii murabbi ruuxi mooy aji yar roogi wa ruuxu te roogi jawharun wurus la wa te kii mooy waajur murabbil jismi mooy yar li nga xam ne mooy yaram wi wa huwa moom euh, sadafun ab aw xoor la la hoo di ko ñeel kon ne na li tax mu wax ne dafa war a jiital xaqi jàngalekatam ci àqi waajuram mooy ne dafa gis ne euh, ab jàngalekat day àq ji nga xam ne euh, ab jàngalekat day day defar li nga xam ne moo di ak ak ruu maanaam day defar li nga xam ne moo di ak ruu day sellal nit ki ci biir baatinam nit ki lay defar waaye bu dee waajur moom sa zahir rek lay toppatoo maanaam di fexe ngay lekk di fexe ngay naan di la fexe di la jëndal lépp loo xam ne moo aju ci sa ci sa dund waaye la nga xam ne moo gën a am solo te gën a ëpp solo nga xam ne mooy tax nit ki àllaaxiraam jag waaye àdduna mën a jag dëgg-dëgg ak ruu la ndax Euh, agro dafa doon loo xam ne loo ama am solo la ci nit te agro euh, euh, seexu tarbiya muy kuy jàngale di yare rek moom moo ko mën a defar kon donte ne sama wayjur am na ak ñeewante lool ci man di ma toppatoo ci zahir waaye nag li nga xam ne moo ëpp solo dëgg-dëgg te mooy baatin ba ñi nga xam ne ñooy jàngale ak a yare ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo koy toppatoo kon looloo tax mu ne sama àqi jàngalekat moom laa war a jiital ci sama àqi waajur moo tax mu ne fa kun na nga nekk bayna yadayhi ci diggante ay loxoom kal mayiti niki am niiw bayna yaday xaasilihi ci diggante aji sangam awil ama wala gumba fii tarixin ci aw yoon wasatal baxri ci digg géej maa xaidihi ànd ak aji wommatam nee na kon boo toogee ci sa kanam ab sëriñ wala nga nekk ak sab sëriñ na nga mel ni euh, euh, ab niiw boo xam ne dañ koy sang fépp foo xam ne fa aji sang ji jëmale néew bi rek foofa lay jëm du ko ne awale ma fii wala awale ma fee wala gumba goo xam ne dañ koy wom wommat ngir gindi ko ngir awale ko ci aw yoon euh, gumba googee na nga xam ne na lay euh, sàkkoo ki koy ommat mu teg ko ci aw yoon euh, ba nga xam ne du bëgg am ak bëgg pour aw fenn ndax xamut fenn fu muy jaar ki koy ommat rek lay déglu moom lay moom lay topp kon looloo tax mu ne yow mi nga xam ne yaay sàkku xam-xam wala yow mi nga xam ne yaa di ab jàngkat wala yow mi nga xam ne yaa bëgg ñu yar la tete la nee na na nga mel ni uh, uh, am niiw ci kanam sa aji yar la wala kanam aji jàngal la wala nga mel ni gumba goo xam ne dañ koy ommat nga xam ne ki koy wommat fu mu ko jëmale rek foofa la jëm moo tax mu ne kama xiila comme ni mu ko waxe wa in saada de doonte dimbali na almaqduru dogal ba aw saaxaka wala mu la almuna xiiwal ga ilaa cheykhin jëm ci ab sëriñ xaqin ba di dëgg-dëgg sëriñ baari an bu bu bu bu raw boo xam ne bu topp suñu borom la fil xaqiqati ca dëgg-dëgg te mooy tasawuf ne fa xum na nga jug fii ca bànneexam wat bi te nga topp li muraadihi ñeel ak nammam maanaam ñeel ak bëggam wadaate nga bàyyi kullama lépp la nga xam ne kunta nekk nga tusaaneo doon ko jëf min xablu la jiitu sëriñ booba nee na saa boo xamee ne day suñ borom bi subhanahu wa taala dogal na nga daje ak sëriñ boo xam ne sëriñ la boo xam ne bu xam suñ borom dëgg-dëgg xam la sëriñ la boo xam ne buy topp suñ borom la ba léppam ci suñ borom bi subhanahu wa koy jeexal nga xam ne mbiram mépp tasawuf la maanaam ixlaas lay jiital ci lépp nee na saa la ab dogal màngee ba nga dajeeg sëriñ booba day nee na na nga fexey ba lépp loo xam ne moom la sopp wala lépp loo xam ne moom la bëgg nga fexey di ca daw sa kem kàttan waaye lépp loo xam ne moom nga daan def avant ngay nekk ak moom la jiitu ngay nekk ak moom nee na loole lépp nanga ko bàyyi te nga topp ko euh, teg ko sa bët lépp loo xam ne moom la la digal nga def ko waaye lépp loo xam ne moom la la aaye bàyyi loola ko nga euh, bàyyi ko moo tax mu ne kon wakkun na nga nekk indahu fa sëriñ booba kal mayiti niki ab niiw inda moxsilin ci e, kanamu aji sangu ko wala ci loxoy aji sangu ko yuqallibuhu dana ko wëlbati mashaa nu mu ko neexee waxuwate moom mu taaweon aji topp la ko ne na kon su la e, ab dogal màngee ci sëriñ bu mel noonu de na mel ni ab niiw ci loxoy aji sangu ko nga xam ne daf koy wëlbati nu mu ko neexee te du ko sañ ne ja dafa wëlbatee ma nii wala jaarale ma fii lu dul ne da koy topp rek ca la nga xam ne moom la bëgg waaye da koy topp rek ca la nga xam ne euh, noonu nga xam ne noonu la koy noonu lay noonu lay jëflante ak moom ngir ngir sangu ko nga xam ne moom amut genn bëgg amul genn sopp lu dul ne ki nga xam ne moo koy sang di ko bëgg euh, di ko di ko di ko toppatoo na mu bëggee rek noonu lay noonu lay defee. kon ne na euh, foofu lim la fiy jàngal rek mooy sëriñ bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg sëriñ nga xam ne mooy dund tasawuf euh, di sëriñ bu sell boo xam ne léppam suñu borom subhanahu wa taala la ciy jiital moom lay bàyyi xel ci lépp ne na saa boo xamee ne suñu borom dajale na la ak sëriñ bu mel noonu ne na na ngay dox ci bànneexam di sàkku lépp loo xam ne mooy euh, xemmemteefam nga koy nga ko cay topp waaye lépp loo xam ne moom lala la fekkan nga koy jëf nga tege ko ne tey topp ci moom ngir topp ci moom mooy li nga xam ne moo lay jariñ tey ak ëllëg ne na topp ga ngay topp ci moom nag na mel ni koo xam ne ab niiw la ci kanam aji sangam nga xam ne fu mu ko jëmale rek fa la koy jëmale du am genn bëgg wala mu am genn xemmimteef naa ko nii nga may defe wala ne kon ñi ngi tuub bu baax tey jéggulu di taxaw foofu di wax ne in uridu illa al islaaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullah ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamawaati ala saxaabati wassaadaati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamawaati